Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di woo jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ngi leen di waat di leen ziar saa su nekk seen mbégte di suñu bànneex ba tax na ni ngeen ko bëggee lañ koy defee ak yéen nekk si leen ak jàmm fii si Setsima TV bakken bu ñam dundu da nga ñam dee loolu foo ko déggee xamal ne xew-xew am na mbokk yi sànq rek fi nga xamante ne bi moom moo di ci page am moom mi nga xamante ne moom moo di Bril foo mi ngi ñuy tàggeek nga xamante ne bii moom moo di waajuram bu jigéen Bril nag buñ ko waxee nekk na euh, auteur compositeur nekk benn rappeur boo xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal mbokk yi moom moo ñu tàggee ki nga xam ne bi moom moo di waajuram bu jigéen xanaa rek di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaye tamit nag ñaanal ko suuf sedd ci kawam di ko jaale képp koo xamante ne artiste nga di ko jaale képp koo xamante ne bi rappeur nga waaye tamit nag di ko jaale képp koo xamante ne bi sénégalais nga notre frère mi nga xamante ni bi moom moo di Bril Fo moom moo ñàkk ki nga xamante ni moom moo di waajur bu jigéen di ko ñaanal rek mama yàlla na la yàlla xaare àjjana yàlla na suuf sedd ci kaw mbokki internet mi ngi noonu di leen jaajëfal eh, yaayu biri lañ leen doon eh, tàggee di ko di leen jox dig daje beneen incha allah jërë ngeen jëf Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ngi leen di waat di leen ziar saa su nekk seen mbégte di suñu bànneex ba tax na ni ngeen ko bëggee lañ koy defee ak yéen lekk si leen ak jàmm fii si Setsima TV bakken bu ñam dund danga ñam dee loolu foo ko déggee xamal ne xew-xew am na mbokk yi sànq rek fi nga xamante ne bi moom moo di ci page am mi nga xamante ne moom moo di Bril fo mi ngi ñuy tàggee ki nga xamante ne bi moom moo di waajuram bu jigéen Bril nag buñ ko waxee nekk na euh, auteur compositeur nekk benn rappeur boo xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal mbokk yi moom moo ñu tàggee ki nga xam ne bi moom moo di waajuram bu jigéen xanaa rek di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaye tamit nag ñaanal ko suuf sedd ci kawam di ko jaale képp koo xamante ne artiste nga di ko jaale ko koo xamante ne bi rappeur nga waaye tamit nag di ko jaale képp koo xamante ne bi sénégalais nga notre frère mi nga xamante ni bi moom moo di Bril Fo moom moo ñàkk ki nga xamante ni moom moo di waajur bu jigéen di ko ñaanal rek mama yàlla na la yàlla xaare àjjana yàlla na suuf sedd ci kaw mbokki internet yi mi ngi noonu di leen jaajëfal yaayu biri lañ leen doon uh, tàggee di ko di leen jox dig daje beneen incha allah jërë ngeen jëf